nous étions confrontés à des difficultés euh, relatives euh, à la pression de l'eau. Euh, c'est ainsi que nous avons sollicité une audience auprès de M. Koundoul, qui nous a reçus. Alors nous, lui avons soumis nos doléances. Bon, il nous a fait des promesses. Par la suite, il s'est déplacé lui-même pour venir expliquer aux populations les tenants et les aboutissants. Et finalement, au bout de quelques jours, on a commencé à, avoir des résultats positifs. La cité-là est née avec le problème d'eau. On a eu des difficultés depuis le début. La première association, qu'on a créée ici, c'est parti de, l'engagement que nous avons eu pour régler le problème d'eau. Et jusqu'à présent, euh, nous n'avons pas une satisfaction totale. Parce que souvent, soit c'est la pression, soit c'est l'heure tardive à laquelle euh, les robinets ouvrent. Voilà, donc voilà, ce sont les mêmes difficultés. Bon, nous souhaitons une amélioration par rapport aux heures d'ouverture et par rapport à la, à la pression. 2 heures du matin là, daan le di rotti robinet yi di fanaan ba fajar ba ñu de 5 heures ñu doga a am ndox léegi fa tubaarkàlla macha allah ba ñu demee SDE bu Tëngéej ñaan si xam ne ni moy kilifa gi mu may ñu ngeen dimbalinu te yàlla tax. ubbil ni robinet yi muy xelli di xelli bëccëg te daawu ni xelli bëccëg guddi lan daan am ndox comme heure yi ma la wax ay 2 heures 4 heures du matin kenn du nelaw mag ndaw góor jigéen xale góor yi borom kër yi sax dañuy root kenn du nelaw léegi nag ñu dem ñëw ci yéen ngeen dimbali nu def effort muy xelli bëccëg muy xelli mais pression bi moo des tuuti pression bi moo des dina xelli mais tuuti lay xelli ak ndox mu changé mi ndox mi changé na neex na lool neexoon na lool na comme événement ñuy nand kontaan ku nekk di tiitaru di wiiju waaye léegi ndox mi ci boppam dafa am changement tuuti ñu bëggoon nag mu gën a neex ñen yokkoon ñu pression bi guubi waaw gënoon naa neex mais bi ndox mi ñëwee di xelli bëccëg dafa xaw a changé tuuti ngeen yokkoon ñu pression bi ñu di leen gërëm di leen sant. ça fait trois ans maintenant on avait des problèmes d'eau vraiment il y avait des problèmes dans les ménages il y avait problème partout dans le village mais Alhamdulillah, depuis ces temps-ci, on a, remarqué que vraiment, il y a, qu'il y a, une pression, une forte pression. On a pris ce problème-là, franchement. Et on est, vraiment satisfait de la scène On est très, vraiment satisfait, très satisfait. Parce que se réveiller à 3 h du matin pour avoir peut-être quelques gouttes d'eau, c'était tout un problème. C'était un calvaire pour les populations. c'était un problème pour toute la population. Franchement, depuis ces temps-ci, on a tous ces problèmes-là sont sont disparus. ñu doole waa ñu jël waaye ndox moom am nañ ko ndax dañ daa tool pàtte ñu dañ daa roote bi léegi bi ñu fi jógee robinet bi am ndox fi lañ ñuy root guddi ak bëccëg ñu ngi am ndox moom te ku ñu dimbali suñu secteur bi ñu daal di jël. waaye nag yàlla def na ni moom yàlla dimbali na ni moom ba ndox mi ñëw di xel guddi ak bëccëg dañuy sant yàlla bu baax gën a yokk sant yàlla bu baax a baax ñi ñu ko indi tam yàlla may leen gudd fan ak wér ba xam ne coon ak jafe-jafe dañ dem topp teen di root xaaju guddi wala yi takk suñuy doom sarete ñuy wëri am ndox léegi nag bu ndeewee nag ba robinet bi am ndox dañuy sant yàlla rek yokk ci gën lañ santoo rek bu baax baax te gën ñoo ubbi suñu robinet bi ñu mën a bañ a agsi fii di dem di root rootati côté ba nële